ñu dàq élection bi amul jeexital ci way politique yi kese ci jamonoy campagne bari na ay liggéey yuy jëlee njëriñ ci xew-xew yi ci yooyu liggéey nu mën see lim able ak njaayum oto. avant ñuy doon wàcc élection yi dina am ñoo xamante ne nii am ñoo xamante ay candidat lañ am ñoo xamante ne nii en fait euh, ay bailleur lañ ñëpp dañuy ñëw fii nii présenté wu wax ne man de am naa souhait bii am naa souhait bii ba tenir seen ay objectif am ñoo xam ne dañuy jax dem ba waxaale oto. am ñoo xamante ne dañuy dem ba defal la ay promesses yoo xamante ne nii presque pare na. ñoom ñuy yëngu ci njaayum oto jàpp ni ndogal li njiitu réew mi jël dana leen gaañ. bu élection yi yàqoo rek ki nga xamante ne moom tamit dafa ñëwoon pour élection yi kese moo ko yëkkati woon déjà moom tamit du mën a jël euh, par exemple ay véhicules yu bari di ko utiliser à outre fins élection yi moo ko taxawoon a jóg léegi nag loolu genre boobaa ah, détournement d'objectif lay doon. ñun am nañu ay oto yoo xam ne juste duñ ko génnewoon pour campagne bi mais vu que duñu mujj reculer campagne bi. ba du ñuy def comme ñëpp rek toog muñ. moo ne jotoon nañ sax pare lu jëm ci campagne bi yëpp ba tax delloo xaalis fekk na leen ci. am na ñoo xam ne waxoon naa ak ñoom ba desul lu dul ñu ñëw jël ci oto yi ba joxoon nañ ma seen avance waaw ah, mais jour bi ñu waxee ne affaire yi annulé nañ ko xaalisu jàmbur moo xam nga mënoo ko téye. da ngay mujj delloo nit ki xaalisam. campagne électorale day faral di dugal xaalis ci gafa liggéeykat yu takku ak dàq bi nu dàq wote wi ñiy able ak jaay oto xam le ni li ñuy ñàkk dana toll ci ay millions ci sunuy koppar.